tiwa ak bàyyi xel gi mu bàyyi xel njariñal ñëpp moo waral caisse de dépôt et de consignation CDC taxawal projet bu mu duppee Kër Maodo di kër yu ne ci xolab Tiwaawan dëkk bu sell bi dëkk bu am ak ëllëk projet Kër Maodo di gunge programme bu yaatu bi di modernisation des villes religieuses maanaam gën a ñoŋal gi son excellence jiitu réew mi président Macky Sall jógtee ñeel këru diine yi ak juróom fukki dëkkuwaay au standing yu mucc ayib jege lool jumaa ju sell ji yomba dem waaye àndit ak noflaay karange teg ci jumtukaay yi war yëpp cité kër Maodo daa boole méngoog jamono ak dëppoog sellaay ngir bépp leeral jokkoo ak Bati Concept ci 77 134 97 97. téeméeri lu gàmm ti waawan la am téeméeri